ñu leen gërëm bu baax mbokk yi ñu dalal la journée mondiale euh, prématurité euh, prématurité maanaam euh, xale bu matul buy judd ci loolu nag la dalal suñu professeur Papa maa ngi fay. di dalal jàmm di nuyu Georges médecin colonel nga euh, sa xam-xam li ñuy wax néonatologiste nga jiite service euh, néonatologie euh, fi ñu jagleel liir ci hôpital Albert Royer bu bu Fann mën na noo xam ba xam yité gu mag la am déet li ñuy wax ñaka matadi ci ci gone yi ci ci Sénégal am déet jërëjëf euh, Babacar jërëjëf euh, Georges di leen remercier ci invitation bi alors euh, ñàkk matadi problème bu rëy la muy Sénégal di àdduna si yëpp parce que sooy xool liñ mortalité infante juvénile manam moy xalé yi xamné sen ñi ñi nga xam ne amaguñ at ñi ci faatu bari na lolu

Euh, euh, ëmb gi euh, jigéenu biir su commencé si bu muy mujjee fóot dañ koy tàmbalee konte si boobu la ñuy commencer compter. ci bés bu njëkku pot mi wala njeexteelu pot mi. bés bu njëkkum póot mi. loolu hmm. question bu baax la parce que bés bu njëkkum póot mi lañ koy commencé di compter ay semaine grossesse bi ëmb gi dañ naan mat na su fekkee mat na ñeent fukki semaine ki nga xam ne juddu na te. ëmb gi matagul 37 semaines kooku lañ naan prématuré mais am na si ñoo xam ne dañuy teel lool lool lool lool lu weesu 24 semaines ñooñu ay avortement lañ leen di gën a considéré donc suñ doon wax dañ naan entre 24 ak 36 semaines plus 6 jours parce que su 37 semaines yi jotee rek euh, doonatul euh, maanaam prématuré noonu lañ daal noonu lañ koy xayma noonu lañ koy définiré est-ce que poids bi am na ci euh, solo. xam nga su ëmb gi matul poids bi tamit du mat mais euh, prématurité yu si bëgg yu si bëri dañuy am faible poids de naissance li ñu naan faible poids de naissance seen poids du mat euh, mais dafa bëri ay variété maanaam am na si ñoo xam ne ay prématuré lañ doon bëriwuñ nag mais seen poids dina mat parce que dañuy am li ñu naan macrosomie seen avance pondérale loolu dañ koy gis souvent si bébé yi nga xam ne seen yaay dafa am jabet day tax bébé bi di funki amna ci ñu bëri ñoo xam tamit. dañuy euh, lire bu tay lire euh, souvent. normal na. non normalul euh, bébé yu normal mais macrosomie moy bébé parce que ñun suñu jigéen ñi loolu lañ bëgg quoi bëgg la plupart des bébés yi ils sont en bonne santé mais macrosomie moy taille bu nga xamné ne dafa ëpp bañ ko tuddee macrosomie loolu euh, du donne lu normal souvent on a on les appelle des colosses aux pieds d'argile parce que dañuy taille mais souvent infection mun na leen yóbbu complication yu bëri mun na xew si ñom donc prématuré dal, amnésie façon yu et euh, le problème moy une fragilité parce que ëmb gi matul cër yi matul euh, ils ont une immaturité de tous les organes. yan cër ñoo dul faral mat prématuré. prématuré sur le plan physiologique ben cëram matul te lu muy gën di prématuré euh, cër yi gën a mat. mais xol bi day dox non. xol bi day dox mais day am matadi. Hmm. poumon yi day am matadi. Euh, roñon yi day am matadi. Euh, butit butit yi day am matadi donc moo nyom euh, li ñuy def ci complication dafa complication bi ñu siy gën a euh, bi siy gaaw am moy liñ nane détresse respiratoire manam poumon yi fay am ben espèce ndox bu fay nek, bi nga xamne moy tax poumon yi du euh suñ ko manqué lee dañ dañuy def liñ nane maladie des mammaliales et souvent dañuy fat et lolu bo bari na ci lim leen di faat. Mm-hmm. bëri na yenen complications yo xamne ne euh, boutit yi tamit matul donc munoo ko jox mu lek normalement parce que loo ko jox yenn saa du ko mun a digérer euh, bëri na façon xol bi day am benn espèce su bën-bën boo xam ne dafa ko tëju si xale yi si ñoom suñu juddoo du tëju. moo tudd nañ ci français. persistance du canal artériel. Mm-hmm. canal artériel la donc day tax ndox mi di jóge si xol bi di sotteeku si poumon yi ba indil ko ay jafe-jafe donc complication yooyu bëri na bëri nga xam ne benn prématuré bi mun na dajale cinq wala 6 complications et donc looloy tax. Euh, soy xool li ñuy faatu fu bëri dans nos services dans nos unités et à mhm. travers à travers le monde mhm. voilà mais prématuré lu koy indi lan moo war a tax rek xale teel a juddu te waxtoom jotul li mën a indi prématuré nag bëri na parce que lépp li nga xam ne day gàllankoor ëmb gi muy doon feebar si yaay ji wala feebaru grossesse bi li complications naan complication obstétricale muy tension diabète wala li ñuy gis souvent également moy yaay ji feebarul ëmb gi amul problème ci bopam mais coono aduna <laughs> stress transport yi euh, difficulté yi euh, day indi liñ ñu prématurité spontanée manam xalé yi xamné ne dañuy teel a te gisuñu cause bu évidente mais li ko mëna indi manam lepp li nga xamné ne day perturber déroulement de la grossesse euh mëna indi euh, xalé bi xalé bi teel a kon pour moytu ko prévenir yenn feebar yi ak itam jéem am xel wu dal. waaw euh, jéem am xel bu dal améliorer niveau socio-économique parce que conditions socio-économiques yi bokk na si li gën a indi prématurité si sunu dëkk yi euh, et puis. Euh, améliorer ce qu'on appelle les soins obstétricaux et d'urgence maanaam complication obstétricale yi mun ko fekk ko fekkee am na tension su fekkee diabète wala neew yi yooyu bokk na ci prévention bi ñi mëna def mais très souvent euh, xale yi foog mu ñu juddu prématuré no munti def dina am ñu juddu prématuré donc li ñuy def moy organisation bi nga xamné ne dañ leen di defal avant ñoo juddu defal yaaji ay façon gi fajj yo xamné suñ ko ko defalé dina tax xale bi gëna mëna dund par exemple exemple bi ñu mëna gëna jël moy ki nga xamné ñëw na pour am grossesse am menace d'accouchement prématuré yaay ji dañ koy defal liñ nane corticothérapie antenatale té corticoïdes yoy suñ ko defalee yaay ji mën na tax poumon yi gëna gawa mature éviter xalé bi am ay jafé jafé noy et donc lolu par exemple ben exemple bu ndaw la bi nga xamné suñ ko defee dina wàññi manam dina diminuer le risque de décès de 50%. c'est-à-dire day yok chance de survie de de 50%. Amna yeneen façon yi fajj yo xamné mën nañ ko def avant xalé bi judd su juddoo nak amna espèce su traitement li nane réanimation en salle de naissance ak ay euh, geste yu bëri yo xamné dañ ko wara defal pour que mu mëna déjà déjà euh, juddu dans de bonnes conditions et puis après li des mooy yobou ko. lool moy euh, solos def visite bo ëmbee ngay dem visite ñuy xol di def échographie ak ñoom waaw visite yi très très important pour la prévention parce que moom mooy tax ñu détecter complications yi moom est tax ñu mën a complications complication yi moom mooy tax ñu éviter que euh, accouchement bi mën tel teel -hmm. est-ce que euh, les indi prématuré mën nañ ci boole ay accident nga daanu mbaa nga am accident bu mënti doon voilà euh, une ni mel waaw si la lépp li nga xam ne day perturber yaay ji moom mun na indi prématuré accident si si la bokk. Mhm. intoxication si la bokk. ah bon euh, ñi nga xam ne dañuy euh, jël ay drogue wala tabagisme sax mun nañ ko si boole. Mhm. yi lépp li nga xam ne yaay ji daf koy def te <laughs> doonul lu normal. boo intoxication suñu xel day dem kat ci ñam. Euh, est-ce que. jëfandikoo ñam bu baaxul mën na indi loolu. lépp li nga xam ne day perturber yaay ji pendant la grossesse mun na déclencher accouchement bi et su baba, day doon accouchement accouchement prématuré. <coughs> est-ce que ay xayma am na fii ci Sénégal ci wàllum naissance yi euh, prématuré euh, faible poids de naissance euh, la ciy représenté ak euh, euh yi. alors sooy xool fi. soo jëlee téeméeri accouchement mun nañu wax ne fukk yi walla fukkar ñaar yi ay prématuré la 10 à 12 10 à 12 de, de, de prématurité. mais xam nga prématurité moy ki nga xamné tel na naa mais dañ lay ni djel globalement parce que ñun suñu journée yi ñi def tay thème bi du prématurité thème bi moy faible poids de naissance dañ ci bolé ñi nga xamné sen seen ëmb mat na men mais sen croissance matul ñu bolé len naan faible poids de naissance so si bolé faible poids de naissance yi ñu ngi yegg ba 20% parce que ño bokk àtte ño bokk ci ay jafé jafé et donc, euh, c'est un véritable problème. Et pour les prendre en charge, il faut que moyen yu bëri bëri bëri. Mhm. lii erreur bi nit considérer que nous touche tuuti la sur l'eau ay investissement yu mais énergie bi ngay def ak moyens yi ngay def pour fait lire bu am ay complications moo ëpp fuuf li nga li ngay def énergie pour faire un adulte qui a les mêmes complications donc ça demande beaucoup beaucoup de moyens l'État et le ministère de la santé ñu ngi def mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, moi, nit ñi amuñu de mhm. mais est-ce que jumtukaay yi itam mi ngi fi. waaw jumtukaay yi. Euh, day couveuse yi ak la mu la mu làmbool. couveuse yi am assez de couveuses, il y a des endroits où il n'y en a pas assez mais de toute façon nous constatons qu'il y a un écart entre l'offre et la demande parce que y a une période bi nga xam accouchement et de prématurité prématurité yi day il y a une période bi nga xam couveuse yi <laughs> ñoo gën a lire yi am prématurité. Ah, bu boobaa du ngeen def nag bu couveuse yi prématurité euh, prématuré yi bu boobaa ay jafé jafé yu bëri bëri am parce que su su boobaa SAMU national ñoy réguler di wër hôpitaux yi di places. place et effectivement c'est une situation extrêmement difficile ku nek da ngay essayer jël le maximum pour les prendre en charge mais c'est des situations qui sont très très récurrentes parce que ça demande beaucoup de moyens mais li ma bëgg wax moy euh de solutions dans nos pays c'est obligatoire mais daf ci am xalé yo xamné c'est une situation mais nous leen ñu faj façon yi faire bi ñu naan soin kangourou suñ ko defoon de façon large dans tout le pays dina wañi besoin en termes de couveuse mooy jël yaay yi jël xale bi taf ko ci kaw wa mbotu kanam la mm-hmm. mbotu kanam gogou euh, les études à niveau international ont montré que euh, yenn say mo gëna efficace couveuse la plupart du temps d'ailleurs mo gëna efficace couveuse parce que xale bi am lay nekkal euh, dina yaay ji dina ko stimuler il court moins de risques infection yek traumatisme yeeg xam ne <laughs> suñu hôpitaux yi des fois. c'est mais loolu fu ko yaay ji di defé ca këram wala ca hôpital. bu dee day jël xalé bi diko diko taf ci kawam ñaan ko euh, kangul. li intérêt bi moy da kay ça dépend si état xalé bi mais mën nako tamalé hôpital et mën nako continuer këram donc ñun par exemple depuis bi commencé def soin kangourou ay bébé yu des fois seen poids du mat sax 1000 grammes leen bàyyi ñu ñibbi tout dépend de conditions yaay ji ak euh, est-ce que comprendre na soins yi et donc une suñ de front ça pourrait réduire le besoin en couveuse et permettre un peu de régler les problèmes mais du du que dans tous les cas on a besoin pour bébé yi nga xam ne am ay complications yu sévères d'avoir des unités équipées. Euh, avec des couveuses, avec euh, du matériel adapté mm, pour, pour, pour faire Mais matériel c'est le problème. Il y, a, le personnel, il y a les compétences, il y a l'organisation, il y a référence. Parce que, je, vous donne un exemple. Fin si a bébé, tech euh, coffee, si température ambiante, bi, température en 30 minutes 37 degrés les lay lay dina wacc ba trente degrés té dina ko fat problème bi par exemple moy xalé yi suñu leni transférer SAMU mënul jël ñëpp des fois non, lañ les transporter c'est ay taxi wala c'est ay ambulance nga ne c'est pas équipé donc c'est un c'est alors hein. c'est c'est beaucoup beaucoup beaucoup de problèmes qui demandent beaucoup beaucoup de moyens d'organisation c'est c'est le ministère effectivement fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Les chiffres sont en train de s'améliorer, mais euh, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de gap Parce que ce on nous une mortalité néonatale, moi, ñaata lire euh, ni ñuy am euh, un mois ce rôle ce 1000 mille 20, ce qui est un taux de mortalité très très très élevé. Le domaine, de de 0,5 pour 1000 donc il y a 40 fois plus de mortalité néonatale fille que dans d'autres pays mais il y a beaucoup d'autres pays qui sont à 40 pour 1000 qui sont deux fois plus des taux de mortalité qui sont deux fois deux fois plus élevés et donc c'est vraiment beaucoup d'investissements c'est une priorité pour le ministère de la santé c'est une priorité pour l'OMS et Fadium lire mëno ko tàkkaleeg fajum yaay ji euh, so jëlul en charge également la maman ay complications mëno wañi liri di fatou surtout liri nga xam am dañoo am prématurité mais il y a un gros défi euh, à faire sur les investissements sur la formation muy médecin surtout ñi nga xam ne mooy infirmières yeeg est-ce que médecins yi ci wàllu boppam mot nañ surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci wàllum réanimation pédiatrique Sénégal alors euh, bëriwuñ bëriwuñ mais ça s'améliore parce que tamit euh, sooy xool y a une dizaine d'années il y en avait pas hein. euh, alors réanimation néonatale ñi de néonatologie bëriwuñu ñi ñëppay def néonatologie vraiment tous les pédiatres dañuy def néonatologie mais ni am formation bi complète euh, peut-être 5 une alors 6 7 personnes <laughs> au, niveau du pays mais nous ngi une formation ñu ngi pratiquer hmm. mais il y a beaucoup beaucoup de choses à faire encore sur, ça quand même hein. euh bu ñu déssé ba tay ci ci walu prématuré est-ce que euh xalé mën nañ ko ëmb ba juroom ñentel wër bi mu waaw bëri na te ñooñu moom lañ retard de croissance mais ñoom ñoom ak prématurité daan daanaka ñoo bokk atte parce que ñoo bokk presque ay complications à quelques différences près euh, te lenn li nit ñi war a xam mooy ki nga xam matul ça veut dire que moom dafa am malnutrition depuis début ëmb ga euh, malnutrition boobu dans le cadre de ce qu'on appelle les mille premiers jours da koy topp si c'est boy euh, études épidémiologiques par exemple en Angleterre ont montré que adultes yi nga xam am nañ ay diabète hypertension infarctus ñu si bëri si si maanaam. bañ nekkee liir la bañ nekkee liir la. Hmm. loolu lañ naan programmation dafa mel ni génétiquement dañ leen programmer déficit yi ñuy am instant boobu moom lañ moo leen programmer ba ñuy am feebar yi nga xam ne euh, moom la ñu am à l'âge adulte alors que dafa ñu. Euh, ils ont, ils ont une hygiène de vie correcte. Et ça, c'est un véritable problème de santé publique euh, qu'il faut également essayer d'anticiper. Il mhm. euh, y a ngi quatrième journée euh, périnatologie Tiens, nga bokk foog na. waaw di ngeen waxtaanee yu bëri sous alimentation xiibon gi itam foog naa jàmbat la ci réew mi tawat la ci réew mi waaw ñun gars suñu journée yi affaire bu bébé la ñuy wax mais euh, malnutrition effectivement c'est un énorme problème euh, Il y a beaucoup de programmes nag sont leen jël en charge mais comme xam nga dëkk bi dafa bëri ay priorités <laughs> euh, donc les résultats c'est lent à venir mais. on note mais ñu boole ko ci priorité Nous, ñu ñu boole ko ci priorité non jour bu ko dugal soldat la <laughs> soldat du wax. <laughs> <laughs> jërëjëf docteur euh, professeur Papa Matarfei, Faye euh, médecin colonel du euh, service néonatologie ci hôpital Albert Royer ci Fann ñu fat ni 17 novembre journée internationale de la prématurité. waaw journée internationale de la prématurité. ñu ak jàmm jërëjëf. merci jërëjëf mbokk yi Fati soumari.com indi dina lu bees yéen ñi dëkk Bambey Njaareem Mbàkke Linguère Daara Touba ak li ko wër seen coono lu ngeen soxla ci téléphone ak accessoire téléviseur cuisinière machine à laver climatiseur réfrigérateur haut-parleur home cinéma ak yeneen yeneen mën ngeen ko fekk ci boutique Soumari bu bees bi ci biir Touba war a le 25 novembre 2023 ngeen dalal leen jàmm ci bés bu mag boobu Soumari Touba 28 dina indil ay xéewal yu am solo Samsung Galaxy A03 Core 29900 900 francs Technopop 7 64 Go 39 900 francs CFA. Infinix Smart 7 HD 64 Go 35 900 francs CFA. Téléviseur Smart TV 43 pouces 99 000 francs CFA Avec ventilateur sur pied 4 900 francs. Heolinak, bisou 25 novembre réglé disponible ngir am ci pour commander le jour J Manga ngaa 33 978 14 14 wala 66 622 57 17 wala fait que YouTube Touba 28 boules.